donc loolu it ñun waruñu ko nangu suñuy militant bu liste yi génne di ngeen gis coow li bëri maa fi njëkkoon maa fi defoon li maa fi la te amul lenn loo xam ne dafa méngoog li sénégalais di xaar ci ñun waaye maa war a falu loolu rek mooy coow li man la sudul man réew mi tas na parti bi tas na dem naa sama yoon pression yooyu souvent les leaders di subir mooy indi yu bëree bëree bëri te dañ ko gis après mais comment trouver le juste équilibre muy exercice bu jafe-jafe jafe-jafe donc ñu waroon def investiture ci base boobu beneen mandarga bi ma mën a joxe man dama jàppoon ni bu ñu génnee ci loolu nañu xool ay leaders yoo xam ne parce que gis nga mbooloo mooy doole ku vivre lu ñu vivre mois de mars février mars bi année année année deux mille vingt et Sénégal yëpp bu ñu jóguloon taxaw lan la euh, euh, honorable Aïda Mbodj joué ci affaire bi lan la Mam Mamba Girassi joué ci affaire bi lan la euh, Cheikh Bamba ci affaire bi lan la Dame Mbodj ci affaire bi pendant ce temps amoon na ay leader de mon yoo xam ne ñemetuñu woon sax jël seen téléphone nee nañ ils sur écoute dem wut fu ñu gas suulu kon dafa am loo xam ne dañ ci toll danga nga soxla doole ñëpp pour jëlee fi li fi ne loolu indi coalition et il faut trouver le dosage qu'il faut le dosage parfait n'existe pas te du mus a exister mais su dee def nañu loolu man jàpp naa ni am na ñoo xam ne peut-être yoruñu appareil yu rëy rëy yoruñu parti yu rëy rëy mais man gënuma leen sonn ci ci ci coalition bi bu ñu dooree ba léegi ñu ngi fii ci premier rang fu ñu mus a fanaan àll ñi nga fa fu ñu mus a et cetera ces gens ñu xool nu ñuy def ba ñu figurer en bonne place ça n'a le cas pour certains ci ñuy ñëw te di bees man jàpp naa ni ku mel ni Dame Mbodj su taxawoon assemblée mais c'est un bon député te je l'ai défendu et j'ai surpris de ne pas voir sur les listes kon kenn ku ne ci ñun am nga lu la neexul ci liste bi dañuy waxante dëgg rek kenn ku ne am nga ko mais est-ce que mun na justifier ñu ne tey ñu tas coalition bi bu dee Sénégal moo ñu tax a jóg parce que Sénégal jeexul de commencé gul sax te bu ñu yàlla mayee ñu egg fi ñu bëgg a yegg bu dee servir rek moo tax nit ñi jóg liggéeyal askan wi ba dugg boîte vocale comme disent les mais yoraat la place pour tout le monde kon. bu ñu génnee ci loolu man dama jàpp ni kenn ku nekk ci ñun kuy leader war nga ànd ak tey ak dal d'accord naa nga exprimer sa frustration dégg naa ñu ne Ousmane Sonko dictateur la dafa génne nit ci ci groupe WhatsApp bi leader bu ne dafa mer amul lu muy def lu dul bind naan l'ancien pensionnaire de Rebeuss voleur de riz et de mille dama lay génne ci groupe bi duma ci waxaale parce que c'est incorrect kooku démb ak barki démb xama woon loolu ci moom bu la defoon deuxième place nga ne wu waa mooy waaja def la foofu nga dugal di saaga ma génne ko ci groupe bi te ku fi saagawaat ma génne ko ci groupe bi amul luñ ciy xaar donc groupe bi c'est un groupe ouvert débat yaa ngi ci yum gis na ku nekk ngi wax loo xalaat avec de mots yenn saay sax truc mais ay xaste ak ay saaga xaju fa group bi man maa ko créé ku ci wax lu dul noonu dama ko ciy génne et je l'assume alors donc ñu bëgg a wax tous les ñu bëgg a wax tous les leaders tous les leaders nañu delloo ci seen xel askan wi dafa am yaakaar ci yeewi askan wi te yeewi askan wi nag dara mënu koo tere continuer nekk li mu nekk bu soobee yàlla dara bëgg nañu ñàkk ñëpp ñu dajal leen continuer liggéey gën a yaatal sax mënuñu téye ko bëgg a dem déggaguma ko ku ne démissionné na déggaguma ko peut-être am na déggaguma ko mu des nag naka la ñuy waxee nañ ko teg ci yoon nañu toog ñu waxtaan et qu'on laisse de côté les procès d'intention su doon man maa def investiture yi tey coow dina am parce que dina am ñu dul d'accord kenn kuñ ko joxoon ci ñoom coow dina am parce que dina am ñu dul d'accord kon projet la ñu am nañu continuer liggéey dans le cadre de ce projet moom mooy premier bi ma bëggoon wax ñaareel bi mooy li xew keroog bésu dépôt liste yi man j'étais à Ziguinchor Cheikh Ahmed Tidiane mu nga woon foofa man biñ ma woowee vers dix-huit heures ma ni lundi dix-huit heures ma ni problème dafa am ci Dakar mbir mi dafa ma bett parce que man jàpp moon ni pour man instant boobu nit ñi génn nañu DGE ba ñibbi parce que ku dugg vingt heures ou vingt une la veille ba dix-huit heures le lendemain bi ñu ma wooyee ne ma problème dafa am ci liste dakaar bi man je je n'en revenais pas Khalifa Ababacar Sall moo ma woo ne ma problème am na ci sept députés Dakar yi te li andi problème bi mooy ñun dañoo defoon préparer investiture ba pare bu ñu demee ba ba war a yeggali dimanche. xam ngeen ni dimanche la woon date dépôt bi dimanche vers midi la ñu trouvé un accord gars yi ñëw signé fii au premier ak waa wàllu ñu war a reprendre l' ensemble des départements loolu du liggéey bu ndaw ndakaaru luñ ci déggoo woon mooy juróom ñaari député la ñun dinañ ci am juróom benn wallu senegaal am ci benn bi ñu demee def le travail ci wàllu département bi ñoom nee nañ dañoo jàppoon ni wàllu benn lañ ko waroon jox boo xam ne jigéen la wàllu ne déedéet comme benn rek ngeen ma jox góor la war a doon loolu moo andi woon blocage bi biñ ma woowee wax ma ko man li ma leen njëkk wax mooy jox leen wàllu góor daal di dugal benn jigéen rocc benn góor ñu avancé parce que wax dëgg yàlla su ñu demee ba ne list Dakar am na problème ñu naan benn góor ak benn jigéen bu ñu waroon def nii moo ko andi du ñu xam lu ñuy wax askan bi donc génne leen benn góor loolu 18 heures ba 23 heures et quelque ci loolu lañ ne woon ñu ne dama dégg ñu bëri ne Khalifa Ababacar Sall moo ko def moo ko tey. te dafa bëggoon piéger parce que Barthélemy la bañ mu def lii et cetera loolu dara du ci dëgg dara du ci dëgg te dama leen ci wax ay firnde yu leer vers vingt bi ma waxee xalifa dama ko ne Khalifa diggante Babacar Mbeng ak Pala Samb génne ci kenn nga dugal benn jigéen ñu dem déposer liste bi mu ne ma il faut mu waxtaan ceeg Barthélemy Diaz parce que Barthélemy Diaz tient à avoir ses trois députés ses trois hommes à Dakar vingt une heures ma woowaat ko ne ko est-ce ngeen ko mu ne ma xaaral ma woo Bart mu ngi woo Bart def ko haut-parleur maa ngi koy dégg bi mu ko waxee Bart daf ko ne mënuñu changer parce que fi ma ko teg mooy dama soxla ñu may jàppale ci campagne bi Dakar il faut ma am ay maire yoo xam ne mën nañu xeex te dinaa mën a ànd ak ñoom ci campagne bi donc su ngeen ma génnelee maire yooyu dinaa am problème pour battre campagne ma ne ko Khalifa raccrochel s'il te plaît mu raccroché ma ne ko waatal Bart nga dugal ma bi mu woowee Bart dugal ma li ma la wax nii c'est vingt une heures et quelque lundi ma ne ko Barthélemy génne leen benn góor ngeen dugal benn jigéen parce que du liggéey li ñu liggéey ba egsi fii ñu naan ñu benn góor ak benn jigéen ñu nar a yàq suñu lis e li ma la wax nii c'est pas une consultation parce que doo leader c'est des leaders qui décident ici li ma la wax c'est une décision on va sortir une femme un homme et on va mettre une femme ñu waxtaan waxtaan mu ne ma d'accord na nañu xool léegi moom xalifa na woo Palla pour wax ko ko. ñu arrêté loolu bi ma toogee ba 22 heures il y a pas d'évolution j'ai appelé Déthié Fall ma ne ko Déthié non yow mii moom ma woo il était à la direction générale des élections mu ne ma y a un problème et cetera ma ne ko passe ma Déthié il me passe Déthié ma ne ko Déthié génneel un nom nga dugal une femme tu déposes la liste parce que tamit nag coalition bi diw moom ko diw diw moom ko fais ça ñu avancer. il me dit écoute nañu xaar tuuti comme dañoo ànd ànd bu rafet ba fii nañu xool ni ñuy def ak suñu euh, nos amis de taxaw pour bañ mu mel ni dañoo wañ seen loxo forcer leen def affaire bi ma ne ko léegi dëcce suñu toogee ba vingt ba vingt trois heures trente minuit waa taxaw décision quest fait mu ne boobaa je prends mes responsabilités je fais ce que j'ai à je dépose ma d'accord